Ibrahima nekkal fi askan wi plaide pour le décalage du scrutin présidentiel le 3 ou le 10 mars 2024. mais le 2 avril Macky Sall du nekk ci président de la République bu Sénégal day quitté réew mi. léegi bu quitté réew mi nan mooy am bu fekkente ni ñun leader politique yi nga xamante ni ñun ñoo war a waxtaan ba jàpp date le 10 wala le 3 mars ñaari date yooyu bu ñu rëccee élection du am Sénégal fii ak le 2 avril. L'honorable député s'est aussi prononcé sur la série de libération des détenus politiques c'était pour le 3 ou le mars. D'ici là, il n'y aura pas d'élection.